شهر وفي سفر وماني على ماني ما نفس والصبر سلام الذي في كل شهر وفي سفر وماني على ماني ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi ñu jógee ak yéen ci plateau yu am solo yooyu ñu ngi foofu fii ci barab yi nga xam ne fa la ñu denc ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, suñu sëriñ si waaye nag mu mel ni kii dañuy ànd ñoom rek daal di seeti barab yi gis ngeen soxna yi lii moo nekk seen i rang yaay ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu man Daba laa la indi Touba. waaw. kon mu mel ni ki ñu joxaat ki nga xam ne rek ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fii di euh, ziyaare barab bi yaay nanga nga tudd. Ndeye ah, moom nee na dégg loolof soxna si da def. maa ngi ci jàmm. ziyaara sëñ bi rek. sëñ Fallou. neex rek. Ah. soxna si na def. maa ngi fi. am jàmm roq ya. yëgee màggal gi. rek neex rek. Ah, waaw dox dox. jërë ngeen mbokk yi ñu ngi ak soxna soo xam ne mi ngi ni taxaw na def soxna si. maa ngi ñoo tudd Fatou Diop. man màggal bi. man sëñ Touba. lan nga dundee màggal gi lan nga fi jëlee boo demee ban ban exemple nga joxe yow mi jógee woon Touba. non macha allah vraiment kontaan ndax ñëw nañ fi bëgg a ziyaare dugg fii xool xool Touba lu mel yooyu mooñ ñu fi nuwaa. ak sëñ xool rek moo la fi am. <laughs> ak sëriñ Touba. ak sëriñ Touba ak màggal. lan ngay dund ci moom yow looy looy dund ci sëriñ Touba. man yaakaar. yaakaar. yaakaar loo man lu baax rek. lu baax rek. ah mbaa lu baax lam doon def yaa ngi koy def. waaw maa ngi koy def waaw. Ah. waaw jaajëf ñu ngi lay jaajëfal ba jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi fii ak benn soxna soxna si na man Muskuta Ndaw laa tudd. foo ko. maa ngi bàyyee ko Tambacounda. Tambacounda nga jógee. lu la andi Touba. lu ma andi Touba. at bu ne depuis bi ma nekkee xale bi fu ma tolloo nii. Ah. damay màggal si ngir jëm Serigne Touba. waaw ndax man Serigne Touba moo ma ñor. Ah. gannaaw yàlla ak yonante Muhammadu. Ah. Serigne Touba depuis bi ma nekkee xale. waaw kuy ñëw Touba yan jikko ngay àndaale. kuy ñëw Touba hmm. dangay yar. Ah. da ngay ànd ak yar ak teggin. ak muñ te yaatu. kuy ñëw ci mboolo il faut nga muñ da ngay yaatu tam. booy dem loo yóbbaale. bu may dem lu ma yóbbaale. taranga li ma gis fii. ak yaru li ma gis fii. su ma demee moom lay yóbbaale te moom lay yaree suma njaboot. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax a baax soxna si na nga def. maa ngi fi rek man Nabou Anne. noo indi Touba. xanaa màggal rek. kan mooy sa sëriñ. sëriñ <laughs> si na def. maa ngi fi. koo jugee. man Sali. ah Sali. nga jugee ñëw fii. waaw nga ah, a ñëw ziare si rek ziare sama si na def. ñooñu fii. yéen a ngi si jàmm yi. ah bëgg a rek macha allah. si na nga def. maa fi. Ah, man Touba Kouta. màggal. looy kan man. Eh. sëñ bi. <laughs> boo ñëw yan jikko ngay àndaale. ah yan jikko nga àndal pour ñëw Touba. yaru. Ah. baax. Ah. ak respecté nit. loo yóbbaale. ah. man. ma yóbbaale ñaan bi rek. <laughs> soxna si na nga def. maa ngi fi rek. yaa ngi ci jàmm jàmm rek kay. Mm, télé baa may seetaan. ni nga bu ñaaw laa. Eh, maire bu bëgg Touba nag. lay wut Touba. Touba dama fay siyaara si rek pour Serigne Touba. Serigne Touba moo nekk suma xol bi. moo nekkoon ci suma xol yi jëkkër ba mu gaañu mooy moo nekk suma xol. soxna si na nga def. ça va bien. moo bàyyeekoo ñëw Touba. man ah. Dakar. Ah. looy wut xanaa ñëw màggal si rek bis sëñ Touba yan jikko nga indaale ñëw rek bëgg tuub rek jéggalu bàkkaar yëpp. loo waaw ah, ah, jërëjëf. waaw jërëjëf jërëjëf nga màggal si ñëw di yàlla rek. ñu ngi jugee ba Conakry ñëw fii nii. lépp ngir sëñ Touba. lépp lu nu am rek sëñ Touba mën ko gën a. mais dañ koy sant yàlla rek. parce que comme que dem nañu ba am lii parce que maanaam man damaa mënul wax sax. xam nga rek jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba ah. kan moo la wan Serigne man ah dem ba sama xol jub si Serigne Touba rek ma gis sama moroom nu bëgg ak loolu moo tax ma ni foog ma bëgg Serigne Touba te dañ ni ku bëgg Serigne Touba rek bëgg nga lépp li nga bëgg te dafa ni mooy mooy seen ñaari waajur dëgg la xam nga rek pare comme que ñun bëgg nañu suñuy waajur foog ñu jëm ko si boole parce que dañ soo bëggee say waajur a pare foog nga am loo si teg. moo doon jël sëñ Tuubaa dugal kës mais du leneen sëñ Tuubaa rek moo nu ñor moom kese naan am waaw jërëjëf borom Tuubaa xaadim rasul amul morom. Ah, jërëgéen jëf mbokk yi nu ànd santaat suñu borom subhaanahu wa taala julli ci sangam ba Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ah, fii nga ñu gis mooy ah, mag jëm ba barab bu tedd bi nga xamante ne ni mooy barab bi Serigne Touba Xaadim Rasul ñaanoon boromam ba mu nangul ko ko ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moo wax ne wàcc xel bihi daari yekkal madina barakatan wa kaabatan wa masona noo ngi fii ak euh, daayiratul Fathul Xafaar di taxaw ñenn ci lenn ci liggéeyu kër Serigne Touba Xadim Rasul ne ci biir jumaa ji taxaw lenn ci wàllu jumaa ji Serigne bi gannaaw ba ma la nuyoo maa ngi lay laaj nan nga tudd ba noppi. man maa ngi tudd sëñ Modou Cissé. sëñ Modou Cissé euh, yaa ngi ci jumaa ji àndandoo ak daayira Xafatul Xafaar mhm. ñu xàmmee seen déguisement bu vert bi mhm. ngeen di taxaw liggéey bi màggal gi dooree ba léegi premier safar mhm. ba fi ñu toll ak laata premier safar lan mooy seen taxawaay bi taxawaay bi lu sant yàlla rek santal sëñ Tuubaa mi nga xam ne tey moom moo waral lii lépp ñu ci ànd ak xol bu seddugul ak mbégte boo xam ne te li ñuy def nii dara waralu ko ngir mbokku taalibe yi rek parce que yaakaar naa liggéey bi yàgg nañ ci duñ ci gan kon lu luñ ci luñ ci liggéey rek sëñ Tuubaa rek moo tax ñu di ko def ñu ngi sant bu baax a baax a baax di jaatal ñëpp nag ci màggal gi tey buñ fi ñëwee defar rek moo tax ñu ñëw fi liggéey sëñ Tuubaa bi rek moo ñu fii di mais du leneen kon dañ ciy sant yàlla bu wér sant ci seen yonente bi bu baax a baax julli ci yonente bi bu baax a baax santaat sëriñ Tuubaa bi nga xam ne tey moom moo war a lii waaw mhm. liggéey bi Fatou Moussa Fall kan moo ko jiite. jëwriñ si jëwriñ Sidi moom moo moo jiite séddale bi nga xam ne moo nekk Kaolack mais sa Sayer moom mooy jëwriñ bi nga xam ne mooy jëwriñ mag yi moom moo nekk Dakar waaw mais ñun suñ jëwriñ bi nga xam ne moo nekk Kaolack mooy jëwriñ si liggéey moom moo jiite liggéey bi Kaolack waaw ndigal li yàgg na muy ndigal li yàgg na yàgg na yógën noonu sëñ Saliou parce que doonoon loo xam ne depuis sëñ Saliou ba léegi parce que daara bi sëñ Saliou moom moo ñu ko joxoon turu daara bi sëñ Saliou ci doom ci moom la jógee woon moo ko tudde woon Fatul Xabaar loolu nag liggéey boobu nag mooy woy ba ni fi ne nii ci lañ nekk ba léegi nii. ndax yéen da ngeen a dégg rek sëñ Tuubaa wa takki baari képp mag boo màggee da nga noppalu yéen ngeen takk seen waaw ñun suñu yitee yëpp sëñ Tuubaa la parce que euh, dañoo ñaan yàlla ci liggéey sëñ Tuubaa bi ñu di ci nekk ba keroog ñuy xëy di faatu parce que ñun amuñu lu sëriñ bi parce que sëriñ bi dañoo dimbale kon lu ñu def lu dul sant ko parce que ñaanuñ yàlla nekk ci neneen lu liggéey sëñ Tuubaa bi sant nañ ci bu baax a baax a baax yëg nañ tawfeex yi nga xam ne sëriñ moom la ñuy defal kon lu def lu delloo njukkal sëriñ bi rek di ñaan màggal gi niñ ko dëgmalee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko àggali ci alhamdulilahi rabbi alamin ba lépp loo xam ne séntu nañ ko ci payu sëñ Tuubaa ñu boole ñu ko ñun ñëpp mu doon loo xam ne kawe suñu jotu lañ sant nañ bu baax a baax a baax a baax sant nañ bu baax sant nañ bu baax a baax ay ndaw ñi yéen mhm. nekk ci beneen wàll mhm. ñàkk ñëw ci liggéey sëriñ bi ci doxal mhm. boo doon am kàddu boo leen di bi nga xamante ni moo ñëw ren ci euh, liggéey ak euh, comité d'organisation Magal Touba muy lan ngay wax li ma leen di soññ mooy ñoom ñëpp nañ góorgóorlu ci liggéey sëñ Tuubaa bi rek te xam ne sëñ Tuubaa moom moo fi nekk leneen nekk du liggéey sëñ Tuubaa sëñ moom yaakaar naa ku ci nekkul nekk yaa ngi ci leneen te loolu yaakaar naa musiba loo xam ne lu mu lay jural ëllëg ay dumay ëllëg mun la dee fekk kon ndaw ñi nga xam ne tey ñoom ne fi nekk nekk ci leneen li ma leen di ñaan mooy ku ci nekk rek war ngaa mën a gëstuwaat bu baax kan mooy sëñ te gën a jàppaat ci liggéeyam bi te gën ci am passif parce que ku la ci raw ku nekk dina la raw bu la rawee ci àdduna dana raw àlaxira kon li ñuy ñaan ku ci nekk rek fa nga nekk nga nanga fa am góorgóorlu bu baax te fas yéene ñëw ci liggéey sëñ Tuubaa bi parce que ñun amul lu dul sëñ Tuubaa tiidaroowuñ kenn ku dul sëñ Tuubaa kon yaakaar naa lépp loo xam ne képp koo xam ne ndaw nga nekk ci leneen maa ngi lay woo di la ñaax yéen ñëpp ngeen ñëw ci liggéey sëñ Tuubaa bi parce que moom rek moo fi nekk dara nekk fi ku dul sëñ Tuubaa waaw waaw béy di ma ci jàpp bari na waaw béy di ma ci jàpp bari na trop mhm. waaw kon nag li may li ma ciy ñaan mooy lépp loo xam ne dañ ko ciy jàng rek mu doon defal ñu tawféex parce que euh, li ci sëñ bi wax ñun ñëpp xam nañ ko parce que tawféexu àdduna ak àllaaxira la ma ñi may ñaan ndaw ñi ñu koy góorgóorlu faral di ko jàng parce que njëriñ ngi ci nekk ñoom mënuñ ko xam ñoom mënuñ ko xam il faut nga jàng ko ba xam li mu lay jëriñ lan la. am na télé <laughs> kon tawféex la rek. tawféex la rek waa ñuy déggalu bu baax tamit xam nga dañoo mënul wax ci mbooloo parce que am nañ ñuy jëriñ ñoo xam ne ñoom lañ fi nekkal xëy na man maa gën sooxee ci liggéey bi moo tax ñu tànn ma wax pour wax loo ma rek mais samay jëriñ na fi nekk ay ñoom ku mel ni sëñ Moustapha ak Bablaye ak ñoom Ibou rek ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bokk ci liggéey bi man seen ndaw rek maa ngi jégalu bu baax ci kàddu yi xëy na suñu borom moo dogalee nii rek mais ñun daal sopp sëñ Tuubaa rek ak bëgg sëñ Tuubaa rek moo ñu war amuñ leneen lu dul liggéey sëñ Tuubaa bi rek sant nañ bu baax a baax a baax di baax ci kàddu yi jërëjëf ko baax salaatu lazi fi amaani ala maani